wal madadi ahlan wa sahlan wa bila adadi ngeen jëf mbokk yi ñu leen di nuyu di leen ziar seen site internet 24actu.com fas yéene ànd ak yéen ci naafilay weeru koor yi diirub fanweeri fan yi tey jii ci guddi gu njëkk gi naafila gi doon fukki rakka rakka bu ci nekk ngeen war cee tari fatiha ina anzalnaahu ñaari yoon xul yaa ayyuhal kaafiruun ñaari yoon ak ixlaas ñaar yoon fukki rakka nag moom moo juróomi sëlmal ñu fàttali leen ko fatiha benn yoon ci rakka bu nekk inna anzalnaahu ñaar yoon xul yaa ayyuhal kaafiruun ñaari yoon ixlaas ñaari yoon jërë ngeen jëf mbokk yi ba suba ak jàmm ci riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi